mbokk yi jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média ñu am mbégte ànd ak yéen ci soir d'info euh, di dalal euh, monsieur Sidi Mokhtar Cissé. Euh, monsieur Cissé ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi delloo nuyoo yi di leen gërëm di leen di sant. expert en développement durable spécialiste genre ñu nuyu au passage madame Diago Ndiaye mi nga xam ni moom mooy présidente régionale réseau EP sécurité pour les femmes de l' espace CEDEAO REP. REPSFECO alors moom moo waroon ñëw mais dafa am empêchement. Euh, waaye yaa ko wuutu. Euh, lépp ci jàngat recensement bi nga xam ni rapport bi siiw na. Mhm. démb mais jàngat ci wàllu jigéen ñi. bu doon tënk rapport bi lan la fësal ci wàllu euh, jigéen ñi. ok am na loo xam ni gis nañ ko moo di ne la jàppoon ci ci wàllum jigéen yi. Mhm. seen tolluwaay ci fànn yëpp. am na ab coppite buñ ci gis. Euh, tolluwaay déjà ci lim bi. ci lim bi waaw ci lim bi waaw waaw ci lim ci lim bi. déjà la woy beneen bi gis nañ ni aussi ci wàllum njur gi jigéen yi buñ daan jur juróomi doom ci ci seen dund. Mhm. buñ ko euh, nattee daal di ko xayma. ah ci en moyenne. en moyenne ah, waaw waaw buñ defee moyenne bi léegi dañ ne wàññeeku na. Hmm. ci loolu nag am na benn njàngat parce que dafa fekk ni dañu yàggul di xool chiffre ANSD parce que boo xoolee am na yeneen rapport 2013 2016 mhm. dañ ciy wone fu muy yéege di wàcc di yéeg di wàcc yéeg di wàcc te noonu laa ko jàppee itam xëy na yéeg di wàcc boobu ci lañ toll mais mhm. itam na leneen lu war a jàpp ci loolu moo di ne loolu war nañ ko mën a jàpp méngale ko walla natt ko ci wàllum askanu Sénégal nu muy yokkee dañ ne woon juróomi at ci gannaaw 15 millions la ñu woon léegi 18 millions. Mhm. xam nga loolu ci lan lay feeñe ci feeñ ci njur gi ak ñi nga xam ne ñooy génn àdduna. léegi njur googu nag bu fekkee na muy yokkoo dëppoowul ak ni population bi di yokkoo ñu war a mën a def benn taxaw seetlu. ci xëy na ñii dee ñi ñi nga xam ne dañuy génn àdduna xëy na am na fu mu wàññeekoo ba tax na euh, limu nit ñi di yokk mhm. xam na loolu jàngat yu bari la laaj kon boobu mën ñu jàppal biti chiffre boobu rek ne nii la jàpp rek daal di taxaw ne noonu la gongo déedéet parce que am na yu bëri yu xóot yu ne ci biir te war nañ ko jàngat bu baax a baax mhm. léegi lan mooy expliquer inversion euh, nombre de femmes maanaam lii mu jigéen ñi mhm. léegi gën a néew lii mu lii mu góor ñi loolu moom man ba mu ko njëkkee gis avant sax ay chiffres di officiel doon ne waa gars yi est-ce que juumuñ waaw hmm. ah, loolu moo doon sama njëkk jàngat mhm. après bi mu demee di jàngat gis ni ah xëy na jus gisuma fenn ci parce que jàngat naa aussi ANSD li ñuy publier ay ati at ak mhm. recensement yi li muy publier mais ma fu ñu gis rek jigéen ñi di gën di wàññeeku góor ñi di yokk mhm. xëy na ci at yi digganteel yi ñaat yi at yi at la yokkute bi di am wàññeeku bi di am muy soppi mhm. wante bii moom jaaxal na ma lool te loolu ANSD war nañoo mën a wax lan ban jàngat lañ ci am mhm. euh, bu ma liiree gisuma jàngat bu ma mën a wax ni ah lii moo waral loolu mais ci loolu bu jeexee. explication joxe nañ pourtant explication disant que dafa am aussi inversion ci ci taux de mortalité infantile bi. waaw loolu am na voilà. déjà c'est buñ dem waaw c'est que xam nga sama esprit. boo jàppee xalaat liy xew ci yeneen dëkk. Mhm. sama esprit dem na ba nga xam ne est-ce que. ba mu ko njëkkee dégg am na tiitaange bu mu ci amoon parce que loolu moo xew par exemple dëkk yu mel ni Inde. ñu ne am góor moom a gënal am jigéen ba nga xam ne góor ñi dañuy commencé di yokk jigéen ñi di wàññeeku. waaw mais le fait tamit nga ni am góor góoram a gënal am jigéen rek munul munul munul tax munul déterminer sexe su xale bi nga xam ne dafa war a juddu. ah mais ah, loolu mën na ko. mën na ko de mais nañ xool Chine nu mu dewee. parce que doom bi bala muy bala ñu koy bala bu ko yaayam ëmbee dinañ daa xam parce que xam may nañu ñu daal ne kon boog bi bugguñu mu yegg mu yegg ah ah, ah, ah loolu beneen problème mi ko moom laa ëmb bi dina yegg dina yegg ak du moo loolu wax tiitaange ah, boobu laa ci commencé woon am mais ju gaw ma sa gisuma dara ci Sénégal lu may may ni loolu moo commencé di xew gisuma ko mais bu ma ko loolu jàngat boobu laa ci njëkk am tiitaange boobu laa ci njëkkoon am Mhm. alors euh, sur mortalité tamit des mères agé de quarante cinq quarante neuf ans jàngat nañ ko ci loolu loolu aussi lu ko waral. bon loolu mooy wane lu tax ñuy liggéey ñun ONG yi. Mhm. ak ministère de la santé ak yooyu. parce que dañu yàgga joytu jooytu. Mhm. xëy na loolu moo tax nit limu jigéen ñi wàññeeku dañu yàgg a jooytu. que nañu bàyyi xel ci jigéen yi nekk di ëmb di jur doom di gaañu parce que couverture boobu dafa am solo ak itam di yàgg ñaax jigéen ñi nañuy dem l'hôpital ca docteur bi bu ñu fekkee ni ñu nga commencé am doom ñu commencé ëmb ëmb bi feeñ na ba nga xam ne dina mucc dina mucc ayib mhm. mais bu fekkee ni itam loolu continuer wuñ di ci liggéey dañuy gën di gis rek jigéen yooyu di gën di ñàkk seen bakkan seen bakkan du rax ci doole mm-hmm. da ngay nekk ci benn ab gox mm-hmm. mucc jot du la am lu la yóbbu ci ku la rewle mm-hmm. parce que yoon yi aussi dañ ko waxan nañ waxante dëgg gis nañ fi dakaar ñu fi tabax autopont tabax lépp mais dina am jam foo xam ni gox ak gox dina la jël ñaari waxtu te sareet ngay takk yooyu yooyu dañ ko war a sóoraale dañ ci war a jàng ci loolu mm-hmm. li ñu war a xool mooy wàññite boobu fan la ci yan yaani zone mm-hmm. mais xam nga li tax ki rapport bi day métti dañuy def région Thiès région Dakar région Kaolack mais gënuñu xóotal ci biir région yooyu yan gox ak go jox yooyu gox yooyu seen nekkin seen anam naka la mm-hmm. ndax gox boobu sedd nañ dem fa diggante fii ak fee day metti jot ci docteur bi ndax day métti loolu bu ñu ko jàngatee gis ni gox ya nga xam ne jot ci docteur day métti foofu la ñu euh, kii gën a méttee foofu la ñu ñàkk bakkan yi gën a tare boobaa dinañ may ñu mën a gën a def li li ñuy tuddee plaidoyer yey nopp gouvernement yi pour seen politique yi nga xam ne ñu ngi koy teg ñu war cee mën a gën a euh, bàyyi xel loolu. Mhm. ndaxte loolu mooy conséquences yi muy am ci ci àddu ci ah. askan bi alors am na beneen point tamit buñ ci relever infécondité des citadines maanaam euh, jigéen ñi yeewoo ci ci taax yi. Mhm. Euh, fécondité bi donc dafa wàññeeku comme ni nga ko waxee sànq. Mhm. passé de cinq virgule un à. en 2013 à 4,2 hmm. en 2023 waaw ah. loolu it euh, lan lan lan moo ko mën a loolu pour man du mbetteel du mbetteel que ce soit les femmes citadines citadines lu tax parce que foofu la ñuy gën a amee accès foofu lañuy ñuy gën a mën a ku bëgg ne man bëgg naa bëgguma am doom wala bëggu parce que nañ ko boole pexe yi foofu la pexe yi ëppee foofu la itam nga mën a gën a mën a jote la nga bëgg a jot mën a gën a mën a moom sa bopp la nga bëgg a def nga def ko tey bu ñu ni am na beneen donnée bu ne ci kii bi mooy accès a euh, comment dirais-je contraception mm-hmm. dañ ko war a méngale loolu ci réewu taax yi ci ngay mën a gën a jot laa doon woowee pexe rek waaw ci yeggul pexe yooyu ci nga koy mën a gën a amee ki ci geneen dëkk yi mm-hmm. te euh, kii bi dem na ba wane ni xale yu jigéen yi dix huit dix huit ba vingt ans ñoo gën a ñàkk am euh, euh, mën a jot ci pexe yooyu que jigéen yi am trente ans trente neuf ans quarante ans parce que ñooy ñooy dem maternité ñooy am doom léegi ba ñu amee doom ñi leen di rewle wala sage femme bi wala euh, infirmière bi gën leen a ñaax pour ñu mën a def ay pexe yoo xam ni day soreel njur gi alors les hommes célibataires 54 pour cent euh, femmes célibataires 37 <laughs> pour cent boobu defe naa yomb naa expliqué ah, am naa yow ci ñi ñi participer ñàkkul ba ba taux bi demee noonu euh, ñaar wala ñett nga denc. non <laughs> non ah, loolu loolu. waaw c'est une explication. non euh, waaw c'est que c'est que am na am doon. parce que ñi ñoo ëpp ci célibataires yi. que jigéen ñi loolu loolu li koy expliqué mooy que ni effectivement. jigéen yi ak polygamie bi am ci mm. dëkk bi. jigéen ñi ñu nekk ci buumum sëy moo gën a yomb góor bu nekk ci mm. buumum sëy parce que góor ñi itam jigéen ñi dañuy teel a dugg sëy góor ñi di yéex a dugg ci sëy loolu mm-hmm. aussi nañ ko bàyyi xel ndax góor ñi dinga am ñaar fukki at ñaar fukki at ak juróom doo mën a takk jabar ndax amuloo lu ko mate moyen yi moyen yi te jigéen laaj ñu ko moyen yooyu. Hmm. kon bu te dañuy far sax faral di loolu ci li ñuy xeex lay doon mooy mariage précoce xale yi di leen di teel a ah, may jëkkër. Hmm. parce que jàpp nañ ni ñu jéem jéem leen a génn ci mbir yi rapidement hmm. ñu daal di suñu xel dal ñu daal di mën a nelaw ba yàndoor loolu tax na jigéen ñi waaw jigéen ñu leen di gën a mën a dugal ci sëy alors euh, beneen mbir tamit gis nañ que Euh, mais noonu laa ko mën wooye ménage bu nekk sur quatre ménages mhm. benn bi ku jigéen moo ko jiite léegi près de vingt cinq pour cent on est à vingt quatre virgule cinq loolu euh, pour man pour man sax des chiffres yi mhm. wanewul réalité bi ëpp na ko ëpp na ko fuuf parce que jigéen dina sagoo ni sama jëkkër moo fi yore kër gi te amul loolu bëri na yow xam nga ko xam naa ko jigéen yi dinañ ne ci biir sëy ne ci kër yore kër gi keneen ñëw mu ne ah sama jëkkër de moo yore lii moo yore laa sagoo bi moo ma defal lii ba tax na laaj yi xam nga laaju eh, enquête ANSD yooyu de loolu tubaab di waxee billet mhm. billet boobu da ciy am yenn saay ndax dañu jàpp ni ci sunu aada ak su nañ ñu yare sago di sagool sa jëkkër Euh, euh, ëmb sutura sa jëkkër dafa am solo lool mais bu fekkoon ni waxante dëgg dëgg dëgg la jigéen ak jigéen dina ni sama kër gi daal sama sama jëkkër def fi dara mm-hmm. loolu dafa bëri de góor laa de nañ ko jàpp am na góor ñoo xam ni ñoom nañu am jabar rek après jeex na mm-hmm. toppatootuñ dara kooku am na ci dëkk bi mm-hmm. moo tax bu ñu xooloon dëgg-dëgg dinañ yàgg ci lu ëpp li ñu joxe noonu alors euh, beneen euh, chiffre tamit boo xam ni euh, gis nañ ni jigéen ñi léegi ci ndaw ñi ñoo ëpp ñuy dem école que ñu góor ñi ça aussi mën na jaaxal nit ñi avant dañ doon wax ni jigéen ñi seeni parents doon ñu woon sawar trop surtout ci yenn dëkk kaw yi mhm. ñuy dem école mhm. mais dafa mel ni tendance bi inversé wu na ndax léegi jigéen ñi ñoo ëpp ca l'école ba ko góor ñi loolu ay at a ngi ñuy wax ni inversé wu na bu yàgg mhm. dañu fàtte ni dafa amoon programme bu ñu tuddee SCOFI scolarisation des fii ba dem nañ ba nga xam ni SCOFI la mu jot lañ ci séntu woon mu ye weesu ko njort gañ ci amoon mu weesu ko lool ba jigéen yi di gën di te itam nañ ci jàpp ni gouvernement bi ONG yi ñeneen ñëpp partenaires yëpp ñoo ci dugal seeni loxo fexe ba ji ñi nga xam dañ jàppoon ni jigéen warul dem lekkool ñu soppi seen gis-gis ak seen dégg-dégg ci wàllum jigéen ak lekkool ba nga xam ni léegi nag dootoo gis ñu bëri ñu naan déedéet sama doom du dem lekkool sawar nañ dinañ ci jàpp mu dem l'école mbir mi mooy ba fan lañuy ñuy yem ba fan la ah, dem ba ban comme ni ma waxee léegi dinañ dem jàng-jàng ba yegg foo xam ne ñu ne ah léegi demal takk dugal ci néegu sëy moo gën ñu takkal wutal la jëkkër mais bu dee primaire rek ko kenn amul ci benn sikki saaka jigéen yee ëpp dañuy dem ba nga xam ne après ne société bi moo leen di meeb génne leen ci lekkool bi dugal leen ko dugal leen feneen alors une particularité aussi gis nañ ni ñu wax ci recensement yi góor ñi ñoo ëpp léegi jigéen ñi ba mu des ci Diourbel pourquoi cette spécificité Diourbel loolu c'est jaaxal na comment ça pourrait s'expliquer que Diourbel bu ñu koy jël comme région nañ jàpp ni sur le plan démographique ci wàllum limu nit ñi mhm. Jurbel dañuy wax Jurbel rek maas nuun gi mais Mbàkke tuuba ah foofu la waaw mooy mu foofu Mbàkke Touba fa la mbir yi nekk te Mbàkke Touba am na noo xam ne noonu la ñuy gisee am gis-gis boo xam ni lu ci ëpp nag dina du ànd ak li des ci waa dëkk bi waa réew mi ba tax na xëy na dina am sax yeneen yeneeni mbir yoo xam ne da nga naan lii fii kawlak nii la mel Ziguinchor nii la mel Ndar nii la mel wante boo demee ba région Diourbel mu soppiku bu baax a baax ndax te itam dañu war a étudier euh, li nga xam ne mooy xar kanamu euh, Mbàkke Touba ak nit ña ak nañuy xalaate ak itam ñuy wax ko fi mais xale yi jigéen yi jàngi taux boobu doo ko jël fekk Diourbel yooyu yëpp dañ ko war a sóoraale boole ko ci biir alors globalement tamit euh, nooy jàngatee recensement bi ni mu fësalee ni la plus de la moitié population Sénégal moins de 19 ans la ñu am ngi ci 19 ans ak ci suuf. waaw loolu kay loolu moom yàgg na loolu moo tax ñu pour ma am problème ak taux de fécondité bi. Hmm. parce que xale yi dañuy gën di yokk moo tax ma doon wax fa nañ fàttaliku de buñ nee ren. Hmm. xëy na jigéen ñu ñoo ëpp góor ñi mais jàpp ni. ci xale yi ndaw yi mhm. ñi ñi am 19 ans ñoo ëpp fuuf loolu lu ko waral mhm. mooy taux de croissance bi population bi am mhm. ci diggante bi donc ay année 2011 2012 2013 bu ñu xoolee kii bi statistique yi 2011 taux de fécondité bi dafa yéeg 2012 mu wàcc 2014 mu yéegaat 16 mu yéeg donc loolu day indi après xale yi di gën di bëri di gën di ñëw yegsi ne salaamaaleykum naam Dramé. avec particulièrement quinze ans et moins su ma juumul la trente cinq virgule huit pour cent. waaw ah. déjà quinze ans et ah, loolu loolu loolu ñuy jàng yëpp c'est énorme mais ñuy jàng yàgg nañ wax loolu ñi ñi nga xam ne ñi ngay yàgg di xool population bi nu muy yokkoo yàgg nañ ko wax parce que itam loolu ñu bëri théoriser nañ ko dafay ànd ak taux de pauvreté. Mm. nit ñi itam li ci ëpp nañ ñi gën a am xaalis ñooy gën a ñàkk doom ñi gën a ñàkk xaalis ñooy gën a ami doom pour am na lu tax lu ko waral yu bari benn bi mooy say problème xëy na danga jàpp ni ëllëg sa doom yi ñoo lay génne ci loolu benn bi da jàpp ni say doom nga ñu bari ñooy mën a jàpp ci mbir mi ñëpp jàppandoo ci ñu génn ci loolu itam am na ba nga xam ni xale yi dañuy mën a gën di bëri di gën di bëri popula nit ñi jàpp ñu ne dañu war a wàññi njureef yi hmm. am na ñu bëri dans le monde occidental dañuy bëgg di pousse ñu fi def wàññi sa taux de natalité wu dans nos pays ci hmm. sunu dëkk yi hmm. mais loolu ñun boroom xam-xam yeeg ñëpp ne nañ non ànduñ ci parce que on n'est pas surpeuplé bëri wu ñu bëri waay booba léegi nag li ñu war a def li tax ñu war a bàyyi xel ci loolu moo di ne bu fekkee ni ndaw yi ñi amagul 19 ans ñoo ëpp fuuf loolu dafa laaj ñu sóoraale ci wàllum politique ni ñuy tabaxee programme gouvernement yi ñu sóoraale l'école sóoraale armée bi ñu fa war a dem sooraale dëkkuwaay yi sóoraale dem beeg dikk bi parce que tey Sénégal transport dafa am problème yooyu yëpp ñu sóoraale ko ngir waajal ñi xam ni ñooy ñëw fëgg si suñu bunt yi ne maa ngi nii yegsi naa yooyu ay waajal la laaj bu fekkee ne dañuy yokk te yokkuñu école yi te yokkuñu maîtres yi yokkuñu dispensaires yi yokkuñu tal yokkuñu dëkkuwaay yi mais problème lay jur te loolu moo tax ñu war a xalaat ci loolu chiffre yooyu loolu njëriñ boobu la ñuy amal jërëjëf jërëjëf Sidi Mactar Cissé juróomi minute a dox suñu digganteeg xibaaru marax yi ñu lay gërëm di la sant di fàttali ne yaa fi wutu Jaago Njaay Euh, madame Diago Ndiaye ñu koy nuyu au passage dafa am euh, empêchement. moo tax mm-hmm. mu dul yegg si mais nga représenté ko de très belle manière Sidi Mokhtar Cissé expert en développement durable spécialiste en genre ñu lay gërëm di la sant. di leen bu baax a baax ci li ngeen ñu may itam ñuy mën di wax ci mbir yi parce que ONG yu bëri ñu ngi liggéey ci lii. mënu keneen mënoon na fi taxaw wax lool mm-hmm. ngeen ñuy may fuñ ci waxee am na solo lool jërëjëf. merci beaucoup. Mm-hmm. jërë ngeen jëf léegi léegi xibaaru marax yi ci kattanu borom